mooy su ngeen di fase jigéen ñi na ngeen leen fase ci seen idda mm-hmm. te mu ne na takk idda ja mm-hmm. da bàyyi xel yàlla seen borom mm-hmm. bu leen leen génnee ci seeni néeg te ñoomit bu ñu génn lu dul ne dañ leen a dikkee ci mbonte gu leer mu ne loolu mooy dëxalu yàlla yi mooy limite yi yàlla tëral mu ne nag képp koo xam ne dangaa jéggi li yàlla tëral mu ne tooñ nga sa bopp ndax laa tadri laalla allah yuxdisu baada dalika amra nga xam yàlla loolu muy jàngale ci idda lan la ci jublu ndax mu ne xamoo mën na am ndax mu ne xamoo amaana yàlla am loo xam dana ko yee ginnaaw loolu nga xam ne ginnaaw bi nga ko waxee ne ko fase naa la mu toog di jàpp idda yàlla mën na yee leneen ci diggante bi te fii bari na ñoo xam ne bari na ñoo xam ne mën yee soo ko wax maanaam ci sa kers yaa ngi ju ñu mbëggeel yi mën na yeewuwaat nga baal ko ngeen jubóo xam nga des fois da ngay gis góor ñoo xam ne dañuy wax jigéen na ko fase naa mhm. balaa ngoon ñu bëgg caa génn <laughs> nii laa mel nag man dama lay fase rek di jooy fu ne ma dem woote téléphone <laughs> c'est ay gis waaw da ngay gis ñoo xam ne dañ naan jigéen fase naa la balaa ngoon ñu bëgg caa génn gis ñoo xam ne suñ toogee ñaari fan génn ca mën nañoo wax lu ne nag waaye su matee ñaari fan mu mel ni du woon ñoom dañuy ñëw di neexalaat ak nangam su fekkoon ne ndaw si dafa ñibbi dañ cay toog di taxaw ci bopp ko ak lu ne ñuy wax. yow kan moo la wax suma film ku wax ne nii laa. non loolu du sa film <laughs> loolu mooy li am. <laughs> xoolal ki ma fase woon. waaw xam nga këru Gàmbi yi seng la. waaw <laughs> maa taxaw ci seng bi di yurndoo ba fàtte ne man lii du miir ma ne gërëb daanu gaa yi fàtte ne. kan la ñu ne ko Cheikh Ahmed la mu ne da koo jox leen ko jabaram mu ñibbi. gis nga nag yàlla nag maanaam ci yërmandeem gu bari ak maanaam xikmaam moo tax mu jàngale lu ni mel parce que xam na nit ni mu bindoo. Mhm. xam nga yàlla yombalul yàlla yombalul tàqalikoo dafa am leneen benn affaire bu doy waar. Mhm. gis nga même jigéen su même góor sax maanaam soo comme ni nga xam ne noonu la ko yàlla di jàngalee ci xadd samiyaam nga xam ne ji góor sax su waxee jigéen na ko comme ci misaal soo jaatee sama ginnaaw mel na ni sama yaay boo jaar sama ginnaaw gis nga même xeetu wax yooyu. Uh-huh. amul sax comme yenn saa yi am na ñoo xam dañ laaj ne ma maanaam am na euh, di wax naan man damaa xaraamal sama jabar ci man maa ngi ah yéen da ngeen ni yàlla ba mën a xaraamal dara ci seen bopp waaye nag loolu mun leen. ñun waaye oustaz nag man man moom ñun li ñu xam moom mooy. waaw. boo tiimee jigéen na ko xaraamal naa la ni suma ndey kooku moom jeex na. sëkk dootoo ko. déedéet déedéet loolu yàlla waxul loolu. ah déedéet. soo demee ci xadd samiya loolu lay jàngale maanaam jigéen soo ko waxee lu mel noonu doo mën a delluwaat ca moom loolu taxul ñu ne sëy bi tas na de loolu tasut ak sëy ah déedéet léegi doo mën a delluwaat ci moom moom nu fa sëy di amee te mënoo delluwaat xaaral dafa am ay dafa am ay conditions yu mu teg mooy ban ak lan dafa wax ne mhm. maanaam da ngay woor da moom dafa wax ne maanaam dangay ngay goreel jaam fa tahriru raqaba wala boog koo xam ne dafa am loo xam ne dañ ko gàlloon ci loosam min qabli an yatamassa wala mu ne nga leyal juróom benn fukki miskin walla nga woor ñaari weer yu toftaloo soo buggee delluwaat moom wax ma ban aaya la ko yàlla wax loolu mu ngi nekk ci euh, suurat Euh, mu ngi nekk ci surat cinquante huit muy xadd samia bi nit ñu bari xam soo demee ci aaya deux trois di ko fa fekk. nu ko nu ko alxuraan waxee damaa jàngul nag. <laughs> indil ma aaya. wax na walladina yaddaharuuna min nisaihim mhm. maa hunna ummahatihum in in um wax in ummahatuhum illa allaay waladnahum mhm. wa innahum la yaquluuna munkaran min al xawli wa zuuran parce que loolu parce que wax boobu yàlla da koy bañ. Hmm. maanaam jëmmi wax jooju ñuy wax noonu jigéen ñi loolu yàlla di bañ la. maanaam ma tiim suma jigéen suma jabar na ko man araamal naa la ni suma yaay dootuma tëddateeg yow. waaw kay comme ñuy wax fii naan sama ginnaaw sama yaay moo jaar sama ginnaaw. yàlla da koo bañ mais wax ko jigéen taxul sëy bi tas. déedéet. léegi su ma ko oh. waxee suma jabar damay goreel jaam wala ma woor wala ma dundal juróom-benn fukki nit mooy sixty people. jeex na boobaa man naa jëfandikuwaat soxna ji damay. continuer noonu la demee. waa sëñ bi yow sa jàngale bi di fase jëfe na de. non yombul de mais lii kay njàngaleem yàlla la du samam njàngale. <laughs> maanaam yow créé woo fi dara dara dara dara. man duma créé man kay li yàlla wax rek laay waaye léegi lan moo tax ñun fase dañuy soo ne nit fase naa la sax ñu ne fase nga ko lan moo tax loolu. waaw non ah, dégguma nga ne dañuy. ñun. li ñu xam. Mhm. su ma jabar tey. Mhm. su ma ne fase naa la rek sëy bi jeex na. waaw loolu nag laa la wax ne wéru. kon ñu ko jàngal yëpp ñu di ko jëfandikoo ñun ñu ngi ci toor. noo toor bu mag parce que parce que dama lay wax lu leer dama lay wax lu leer. Mhm. gis nga képp kuy jàngale loolu. boo hmm. ne ko jox ma benn aaya bu koy saxal ba keroog àdduna tukki du la ko jox. dafa am benn jigéen bu ma message léegi. Hmm. mu ne kii ak jëkkëram dañu dëkk mu amoon Covid. Hmm. mais léegi bokkuñu fu ñu dëkk. te du ñuy laalante tamit. muy laajte sëy bi tas na wala tasu bokkuñ fu ñu dëkk laalantewuñ waaye ñoom ñaar ñu ngi dem ak a ñëw waaye duñ tëdd comme góor ak jigéen dëkkuñu mu ne sëy bi tas na wala tasu. no kenn ki dafa am Covid. waaw waaye wér na ba mu amee Covid biñ ko beree fañ ko beroon fa la mujj dëkk. jabar ji dëkk feneen mais Covid ba ko tere woon a ñëw loolu moom wér na léegi. waaw waaye laalanteetuñ dëkkatuñ mais nag ñu ngi waxtaan ñu ngi demalante ak ñëwalante. maanaam ñoom ci seen bopp dañoo wax ne dañoo tas wala tasuñ. non waxuñ tas dañoo toog rek laalanteetuñ dëkkuñ. nga xam ne ñoom dañ caa déggoo. waaw ñoom ñaar ñëpp waaw. ah suñ ca déggoo kay loolu ñoom. loolu leer na. Euh, bu déggoo su fekkee ne ñoom dañ caa déggoo loolu kay ñoom la su fekkoon ne nag par exemple day wax ne ku góor ki da ko abandonné wala nàngam su boobaa lañ mënoon a wax dara. oustaz man dama nekk jullit. Mhm. waaye góor jigéen laa. <laughs> damay tëdd suma moromi góor. damay tëddee góor. Euh, ma dégg suma benn moroomi jigéen bu dee woon Sénégal. waaw ñu sulli ko lakk ko ci dëkkab xam-xam ñëpp ànd ci. waaw su ma demee ci nit ñi ñu ne ma góor jigéen amul place ci société bi du nekk den ko ñenn ñi ñu ne suñ ma jàppee den may rey. waaw ma lay laaj na waxuma waxi kenn. waaw lan la yàlla dogal àtte ci góor jigéen. no xam nga maanaam euh, loolu man mii sa defoon naa ci waxtaan. parce que kooku biñ ko sullee lakk ko damay ni wax na leen loolu ñàkk a xam moo ko waral ndax amul diine kii dund am diine dégguma foofu am na solo nga lan amul diine ma ne néew amul diine mhm. kii dund moo am diine ah. moo tax soo demee ci alxuraan doo fa fekk yàlla di wax armée lu jullit ak armée lu kudul jullit ndax néew amul diine. kon loolu amul man su ma deewee fii Amérique mën neen maa yóbbu ci armée bu nekk rek sul ma. sa jëf képp lay jëriñ ëllëg nit kum mën a doon fu ñu la mën a suul ëllëg say jëf képp lay jëriñ su ñu suulandoon su ñu ak ña nga xam ne ñoo gën a bon ci àdduna bi ba ñuy dund su bokkoon suul ci benn barab ñoom lañu nekkee woon du am dara lu muy affecté ci say jëf yow. yow la nga nekkee woon du am lenn lu muy affecté ñoom ci seeni jëf. waa léegi kon jullit yi wax ne waruñoo ñaanal chrétien loolu kon alxuraan waxu ko. non maanaam al maanaam ku dee xam nga yàlla moom li mu wax dafa leer yàlla dane wa an laysa lil insaani illa ma saa maanaam gis nga bis nit ku ne la nga jëf yow moo lay jëriñ soo demee suuratu yaasiin aaya 12 ni suura 36 aaya 12. mais alxuraan ni nga ko def nii wax saar wax aaya lii lan la nii xanaa da nga ko naan wala nu mu demee parce que yow da ngay toog di cokkati aaya nu mu la neexee mais man mënuma loolu. waaw oh, non <laughs> non mais lii dañ ci yàgg rek loolu du dara. Ah, kaay wax la nag sëriñ su bëri bu ñuy làkk alxuraan nii dañuy jiw de. <laughs> ah non mais non mais. mënuñ ko de gars yi fii moom yaa leen mën de lu leer laa lay wax. non non non. sérieusement gars yi dañuy tibb aaya nii de. <laughs> non non non xam nga alxuraan maam xam nga loo xam ne dañ ko jàngoon te yàlla dogal na tamit ñu ngi ci jamono bu ne di ci waxtaan tamit presque suñuy wax presque lépp lool la te nit ñi des fois sooy wax ak ñoom li wér te wóor mooy li nga leen di wax man damay wax ne bu ma gëm ndax ëllëg yàlla du la du laaj kenn lan la Cheikh Mbacke waxoon lu ma lay wax dama lay jox référence ne ne demal nga vérifier sa bopp. yow Mbacke nga saaxo non Cheikh Mbacke lañ may wax quoi. Ah, sa baay dafa maye tur maye sant yokk santam. Hmm. waaw kay. <laughs> noonu la doon wax nga ne nga ne aaya yow daal aaya nu la neex ngay cuqi. waaw non foofu laay ñëwee quoi xam nga loolu. Hmm. maanaam nit ñi sooy wax ak ñoom. danga leen di jox référence ngir ñu dem gisal seen bopp. damay wax ne gis naa ak gisal nañ ma du benn. Hmm. te nit ki soo xam soo suñ laa waxee nga dem gis. yow séqatoo kala waxoon dara. dëgg la yàlla sa borom nga séqal li mu wax soo ko gëmee yow la soo ko weddee yow la loo doon wax ci suratu yaasin suratu yaasin day wax ne inna nahnu mooy ci aaya bi inna nahnu nuxyil mawta wa naktubu maa xaddamu wa aathaarahum wa kulla shay'in ahsaynaahu fii imaamin mubin yàlla day wax ne ñun ñooy dundal ku dee te danañu bind la mu jiital ak i jeexitalam yàlla moo xam ne ne nit ku dee la mu jiital ngir ëllëg ak jeexitalu loolu mu jiital loolu loolu lañ koy bindal nga xam ne ci misaal yow sooy jëf di def lu baax lu baax loolu soo fi bàyyikoo nit ñi di ko jëriñoo yow la cay sa wàll danga koy jot waaye nag nit bàyyikoo fi ñu ne léegi nañ ko ñaanal nàngam ngir nàngam déedéet mu mel ni léegi nit ki day dundee nu mu ko soobee bàyyi koo fi nit ñi di ko ñaanal ngir ñuy yokk ci ay kontam loolu moom wax dëgg yàlla loolu nekkul lu wér loolu nag ku nekk moo xam jullit beeg keneen keeg ñëpp ci bokk yam hmm. noonu la demee ñëpp ci bokk yam ndax yàlla ndax yàlla lu wax dane yàlla lu wax dane uh-huh. yàlla dane kullu nafsin bi ma kasabat rahina même ci àjjana li ngay dégg ñu naan àjjana yàlla xam ñu fay dugg wala maam nit ki say jëf du la fa dugal may leen loolu wérul de boo ko teg li yàlla wax yàlla moo ne udxulul jannata bi maa kuntum taamalun tàbbi leen àjjana ci li ngeen nekkoon di ko jëf kon nit ki ay jëfam moo ko fay yóbbu may leen yàlla dafa responsabiliser doomu aadama bi ci kaw suuf nit ñi nag dañ lay ni ñuy waxee des fois day mel ni yow mën ngaa dundee ni nga bëgg a dundee soo fi bàyyi ko ñu lay ñaanal mu mel ni sa compte dañ koy chargé loolu du njàngaleem yàlla de. Mm-hmm. nit ki si nit ki yow bi ngay dund yaay defar sa àllaaxira. Mm-hmm. noonu la loolu leer na. Mm-hmm. léegi ci sax gëm-gëm yow. ndax gëm nga ni am na benn musiba bu raw. Mhm. nekk sunni yi topp sunna ndax gëm nga ne musiba gën na koo féete kaw. non man nekkuma di wax est-ce que maanaam euh, lii su lii musiba la wala du musiba man damay fàttali li may fàttali mooy li yàlla jàngale di wane liñ ñu jàngaloon lu ci bari. na mu wuuteeg li yàlla jàngale lu ma ci waxit ma indi preuve bi teg ko ngir nit ki mën ko xoolal boppam gisal ko boppam xamal ko boppam xam na kat kon lii yàlla jàngale ak lañu ko jàngaloon ci lii daa wuute man foofu laa ne mais man nekkuma ci li ñuy wax affaire jugement déedéet man damay ñëw di fàttali di wax ne ci misaal xam ma jox la benn misaal ma jox la benn misaal xam nga nit su fekkee ne yàlla dafa ñëw wax ci benn nit nàngam yow ñu jàngal la loo xam ne day di la yàlla wax yow nga gëmoon loolu jàpp na loolu mooy diine nit ñëw na la ah loolu bokkut ak diine de ndax dafa wuuteeg li yàlla wax nga ne ma li yàlla wax lan la may la yàlla lii la wax saar sàngam aaya sàngam demal xooli ko nga dem xool ko gis ko gis na loolu daa wuuteeg la nga jàngaloon léegi nag la ca topp yow la soo gëmee yow la soo weddee yow. non man maa la déglu. waaw. nga weddi ko ba ba ne ni musiba bu rëy la ndax sosal yàlla la moo tax ma laajee la ko nit ci sax. ah non xam nga dama koy wax parce que lan mooy musiba moom laa wax. maanaam xam nga soo wax man man laajee laaj bi ma la ndax yow ci sa gëm-gëm. Mhm. gëm nga ne musiba gën naa rëy topp sunna parce que yow yaa ko tuddee musiba. non mu du tax ma non maa li may tuddee musiba. mooy bokkaale gi nga xam ne moom moo ci ne te bokkaale dara gënu koo doon musiba ok léegi yow d'accord nga ci sunni yu wala d'accordoo ci sunni yu non ma sunni yu non du du d'accord ci sunni yu man d'accorduma ci lenn lu dul li yàlla jàngale di islam ok te ci loolu noonu nga ñàkk a d'accord mën naa cee jàpp ne sunna ci la bokk waaw lépp lu wuuteeg li yàlla jàngale sunna non te te tey defal ndànk defal sax xam nga suñ ne na dafa am benn affaire boo xam genre piège la gars yi dañ koy def quoi xam nga soo ñëwee nit ñuy jàngalee dañuy ñëw rek ne la sunna dafa am affaire bu am nit su nee na danga koy laaj ban na lay wax parce que alxuraan soo ca demee na sunnatallaa mu ngi fa yàlla dafa am sunnaam soo ñëwee ci ahlu sunna wal jamaa dañoo am seen sunna soo demee ci ahlu chia dañoo am seen sunna maanaam yii duñ ko wax nit ñi dañuy ñëw rek ne kii dafa weddi sunna mais ban sunna lay wax sunnaay yàlla lay wax bu sunniti wala bu chiiti ban la ci wax. ok man li may laaj. Mhm. sunna bi nga xam ne. Mhm. ñi ci nekk dañoo wax ne. Mhm. ñu ngi ko jëlee ci bi. muy siya yi. ak ahlu sunna wal jamaa. te ñu am mazhab yu ñu jokk sunna boobu laa la laaj yow ànd wala da koo contre non boobu ànduma ci ndax du ah, ndax njàngaleem yàlla tout court quoi euh, li may laajte ci sunna boobu mm-hmm. fan nga taxaw yow mm-hmm. ba ñàkk a d'accord ak sunna boobu bonal lépp ne dafa bon fan nga taxaw ah, fi ma taxaw fu yomb la mm-hmm. xam nga damay wax ne diine yàlla yàlla moo koy jàngale. Uh-huh. des fois nit ñi dañ may wax ne ma yow dangaa dàq nàngam maa ngi leen man dàquma dara lu yàlla saxal mooy li sax lu yàlla saxalut saxut ak ku ko mën a saxal nag keneen. ndax ma jox la benn exemple. soo demee ci alxuraan ci diine ci diine yàlla dafa saxalul lu dul ab téereem yonent bi ci boppam. yàlla ab téere la ko joxoon kem ni nga xamee ne yonent yu ko jiitu yàlla ab téere la leen joxoon léegi nag yow su ma la doon laaj yow ndax yonent bi yàlla da ko joxoon ab téere ak leneen wala téere rek la ko joxoon. alquran rek la ko joxoon. waaw ñun loolu rek la ñuy wax léegi nag ku ñëw ginnaaw gi ne la ma jox la misaal nit su ñëwee ginnaaw gi ne la yonent bi day daan na wax lii wala daan na jëf lii. man ma ne ko loolu nga wax ne yonent bi daan na ko wax wala daan na ko jëf te yonent bi moom xam nañ ne yonentu yàlla la woon la ko waroon mooy jottali risaalab yàlla loolu nga wax ne moom daan na ko wax wala daan na ko jëf ana loolu fan la ko yàlla waxloo wala ana loolu fan la ko yàlla jëfloo. loolu yomb na xam nga tey. Mhm. kenn ku ci nekk. Mhm. dafa am lu la yàlla waxloo li la yàlla waxloo ba pare dafa fekkoon yow nga nekk sa nekk googu di nga rootee ci loolu nekkal dara su ko defee def googu nga koy def ginnaaw bi ñu yàlla annoncé ne sellal na la annoncé ñu ne wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuuha annoncé ñu sa jikko ju rafet annoncé ñu fim la teg Mm-hmm. yow boo jëfee. Mm-hmm. dañuy topp ci jëf jooju. Mm-hmm. ndax yow lépp loo def. den la ko def loo ci ndigali borom bi. loolu rek la foofu rek leen ko la ko gars yi. léegi nag léegi affaire bi xam nga foofu la nekk. gis nga yonent bi soo demee ci alxuraan yàlla da koo jëfloo dànkaafu ko da koo waxloo dànkaafu ko yàlla boyalul yonent bi. ma jox la benn misaal. su fekkee ci wàllu wax loo xam ne yu bari doo koy dégg yàlla dane uh-huh. walaw taqawwala alayna uh-huh. baad al la axasna minhu bil yamin summa laqataana minhu l watiin fama minkum min ahadin anhu xaajizin yàlla dafa wax yonent bi ne ko soo ñu waxalee lenn ci wax yi danañu jàpp ci sa ndeyjoor dagg sa sidditub xol nii benn yàlla waxaat ne ko nekko ci suratu isra ne ko aaya 73 wa in kaadu la yaftinuunaka an illadi awxaynaa ilayka li taftariya alaynaa gayrahu wa idan lattaxaduuka xalila mu ne tuutee tee ñu fitnaal la wala tuutee tee ñu fiir ci li nga xam ne moom la ñu wax mu jëm ci yow ngir nga sosol ñu leneen mu ne ko loolu kat soo ko defoon dinañu ñoom dinañu la jàppee ab xarit yemul foofu yu ñaar yooyu ci wax la am boo xam ne ci jëf la xam nga lu ko wax dane ko fastaqim kama umirta wa man taaba maaka wala tatgaw innahu bima taamaluuna basir wala tarkanu ila alladina zalamu fa tamassakumu nnaaru wa maa lakum min dunillahi min awliyaa summa laa tunsaruun mu ngi nekk ci suratu Huud muy surat 11 ay 112 113 yàlla wax yonent bi ne ko jubalal kem niñ ne ko digale yaa ngi dégg bu baax waxu ko comme ni nga ko bëggee wala comme ni nga ko yëgee wala kem ni nga ko xalaatee dana ko jubalal kem ni ñu la ko digale yow ak ñu tuub ànd ak yow te bu leen ëppal ndax yàlla kat mu ngi gis li ngeen di jëf mu tegal ko ci ab dànkaafu ne ko buleen leen jéng jëm ci ñii tooñ kon di ngeen laal safara nga xam ne yàlla foofu lan la nga xam ne yàlla foofu lu mu ko dànkaafoo mooy safara ca boppam su fekkee dafa jëf lu wuuteeg kem nañu ko jëfloo bi waaye xam nga alxuraan boobu ndax mus na wax ne yonantu jëf na lenn loo xam ne santuñ ko ko déedéet moom munu ko def d'accord léegi kon mm-hmm. lépp lam daan jëfee ndax bon nañu roy ko. déedéet waxuma loolu. non waxuma loolu nga wax de non man may laaj waxuma loolu nga wax. Mm-hmm. dama la laaj ma ne ndax bon na yonent bi mu doon def dara wala wax dara ñu roy ko ndax loolu bon na. déedéet maanaam loolu mënta bon. jërëjëf ndax yonent bi du def luñ ko def loowul. jërëjëf. maanaam yonent bi maanaam mënta def lu ko yàlla def loowul ci diine. léegi nag lu mu def te yàlla def loo ko ko loolu kay ki gëm loolooy li war ci yow nga def ko sax. loolooy sunna. <laughs> déedéet non non non parce que ma jox la exemple ma jox la exemple. Mhm. ci misaal ma jox la exemple loo xam ne dañuy wax ne sunna la. Mhm. xam nga dangay dégg ñu ne maanaam woor juróom benni fan ginnaaw weeru koor na la di nga koy dégg. Mhm. waaye léegi koor googu ku ko digle. xaw ma kan moo ko digle. ah affaire bàyyi noonu ça veut dire que problème foofu la nekk maanaam suñ ñëwee ne la nangam sunna la yow kay lañ lay wax ne sunna la yow xoolal ndax dëppoo naag njàngaleem yàlla wala déet. ñi wax ne sunna la. waaw. den dañoo gisoon yonantu sopp di ko def ñu def ko. yonantu bi mënul def ci diina lu ko yàlla digalu mënta ne. non xam nga d'accordoon neen mhm. ci na man ak yow. ci nan bismillah. ok li ñu d'accordoon mooy yow nangu nga ne. Mhm. yonent bi du def lu ko yàlla digalul. Mhm. nit ñi fa nekkoon yàlla waxutoon ak ñoom. Jibril gisuñ ko. kañ doon gis muy dund nekk nit. di feebar. moo faju ji ku feebar faju Mm-hmm. moo daan lekkee ndeyjoor ne lekkee leen ndeyjoor. Mm-hmm. moo daan lekk ne bismillahi rahmaani rahim nit ñi di lekk ne bismillahi rahmaani rahim. Mm-hmm. noonu leen doon topp lañ ko toppoon may muy def. nga xam ne dara dara tegu ci boromam looluy sunna. déedéet non non defal ndànk xam nga yow yi ngay wax yow yaa ngi wax ay détails ay ci misaal sooy lekk. wala ci misaal nga ma indil yow da nga ma indil détail ci woori juróom benn non bokkul non xam nga loolu xam nga par exemple. Hmm? man su ma lekkoon te wax ma maanaam te waxuma bismillah. Hmm? nan moo ma ciy du la ci fekk waaye ki wax bismillah moo la ëppale. waaw non waxuma loolu non <laughs> lu may ëppale ci lekk gi. ok lim la ëppalee mooy. sant gi mu sant boromam reconnaître reconnaissance bi mu am ci boromam ba tudd turam ci lekk. mënta tolloo ki nga xam ne tuddul turu borom bi ci lekk donte ne nag ñàkk koo def ko bàkkaar non non non non bokkul bokkul dama li ma wax dafa simple dama man su fekkoon ne par exemple comme ñu ne léegi nit ki suy lekk na lekkee ndeyjoor man su ma doon lekk ma lekkee lu dul ndeyjoor léegi loolu lan moo ci ne ok foofu maa ngi jéggalu sax parce que man waruma tontu laajte ma war mais li may tontu pour laajte mooy ndeyjoor bi. moom ngay laabo boo demee ci toilette. laaboo boobu nga koy laaboo ci ni doomu aadama civilisé. nekkeel bi laabul bi ndax ñaar yàlla yàlla may mais. xaaral xaaral maa mais boo amee benn loxo. am nga ngant benn bi day jël ñaar yëpp mais comme ñaar nga am dangay ngay benn lekkee benn dara new ci. xam nga loolu maanaam diine maanaam dañ ko jël. def ko mbiru détail yu sew yooyu loolu du diine maanaam diine dundin la goo xam ne yàlla moom mooy wax nit ki nii la war a doxalee nii la war a dundee du ay mbiru lekkeel ndeyjoor wala sooy fekkee da ngay sol dàll jiitalal tànkum ndeyjoor wala nàngam déedéet loolu nit ñi ñoo ko jël yóbbu ko ci détail yooyu même soo demee ci douche nii ngay doxee nii ngay defee nii ngay nàngamoo maanaam su ñee wax sunna yow fi mu toll nii sooy wax sunna yaa ngi ma yóbbu foofu man dama lay indil ci ay jëf yoo xam ne nit ñi dañ koy jëf mu doon loo xam ne nit ñi dañoo dem ba jàpp ne munul ñàkk te ñu ne loolu yonent bi moo ko daan def ñu ne leen yonent bi daawul def lu ko borom bi digle loo xam ne yàlla digalu ko ko te yéen lii ngeen di wax yàlla diggalu ko ko. xam nga dama dama dama gëm ne. ci aadaay doomu aadama mm-hmm. sunna am na ci ci jaamu yàllaay doomu aadama sunna mm-hmm. am na ci ci waxin sunna am na ci maanaam sunna ci jaamu yàlla am na sunna ci aada am na sunna ci deflante am na xam nga sunna saa sunna mm-hmm. sunna saa sunna di nga lekk sunna saa sunna di lekk lekk ci sunna nag mooy lekkee ndeyjoor lekk sa kanam xool ci diggu bool bi jox ko cër noppi non loolu yëfu nit la. maa non maa ngi ñëw maa ngi ñëw damay yëg. Hmm. ci loolu ci aadal nit la. Hmm. léegi na ci jëflante nit ak nit. Hmm. yow bi ngay ñëw denn nit ñu ne naa bàyyi suma xel. ci ah, maa ngi ñëw ñëw de. waaw ñu suma xel. waaw waxuñu la du dëgg mais rafetlu wuñ la fait ma ne koy ñoom rafetlu wuñ ko. waaw loolu sunna la. mais dara nekkul ci non maa ngi ñëw maa ngi ñëw dara nekkul ci. man may doomi wolof wolof ne cuñcu ma ne cuñcu mu ne koy ma ne koy mais rafetlu wuñ ko pourquoi parce que sunna la ak yar mais nekkul ci alquran ne su ngeen di wax bu leen wax koy. non non non non non xam nga loolu. léegi sunna ci jaamu yàlla nag maa ngi ñëw sunna ci jaamu yàlla. ki yàlla waxaloon yónni ko ci ñun nam ko daan defee loolooy sunna léegi nag mën naa d'accord ak yow ci ne lañ ñu wax ne mooy sunna moom la wala du moom. loolu mën naa cee d' accord parce que man du luñ ma wax ne sunna la d' accord naa ci. mais na yenantu daan defee daan waxee daan doxee loolu moom mooy sunna te loolu d' accord nga ci ak man. xool loolu non non non loolu dama lay wax benn affaire. dama leen wax ne leen ci misaal. yow soo jàngoon menuiserie ci théorie. nga pare di pratiquer menuiserie. léegi pratique boobu ngay def. ak la nga doon jàng ndax tur bi day changé. nga jàng menuiserie di pratique menuiserie. waaw nga jàng menuiserie ci théorie. Mhm. ginnaaw bi ngay pratiquer menuiserie. ndax la nga jàngoon na mu tuddoon ak li ngay pratiquer ni mu tudd ndax tur yi day changé. non du changé. foofu laay waxee. yonent bi yàlla alxuraan la ko joxoon. Mhm. alxuraan jooju la daan jëfe Mhm. léegi nag alxuraan janaan jëfe ndax day ñëw di am beneen tur bu dul jëfe alxuraan déedéet waaw foofu nag laay waxee damay ni wax ne leen concept bi ñuy wax sunna di ko askanale yonentu bi loolu ginnaaw yonent bi la jublu te jubluwaay bi lenn la woon ndax alxuraan su fekkee ne moom képp dañ caa sukkandiku benn nit mënul tënk benn nit ci lenn lu mu mën a doon dañoo créer concept bi ñuy wax sunna di ko askanale yonent bi ngir di dugal yoo xam ne amul benn delluwaay ci alxuraan moo damay faral di wax ne loo dégg ñu wax na la sunna la rek mooy amul preuve ci alxuraan loo dégg ñu ne la sunna la amul preuve ci alxuraan lii nag ku dem gëstu yow di ko gisal sa bopp lan moo jur concept boobu ñuy wax sunna parce que léegi ma jox la exemple ma jox la exemple loo xam ne gars yi dañuy wax ne ñu ngi sukkandiku par exemple ci xadiisu comme comme par exemple xadiisu waa ahlu xam nga léegi di ñëpp dañ leen di jàngal soo demee ci téere fiq yi ñuy jàngale di wax ne ku maanaam ku murtad dañ koy rey ku murtad dañ koy rey ku dañ koy rey soo demoon ci alxuraan ba alxuraan daj doo ko fa fekk ab xadiis lañ lay indil ne la yonent bi moo waxoon ne man baddala diinahu faqtuluuhu ku soppi diineem rey leen ko may leen yàlla mi wax ci alxuraan laa ikraha fi diin diina amul force yàlla ci wax yàlla mi wax ci alquran na alxaqu min rabbikum fa man shaa fal yuumin wa man yakfur dëgg ci borom bi lay bàyyi ko ku mu soob mu gëm ku mu soob mu weddi may leen am benn aaya boo xam ne dafa ñëw ci alquran nekk ci suuratu nisaa aaya 137 yàlla wax ne inna alladina amanu summa kafaru summa amanu su summa kafaru mas sdaadu kufran lam yakun illaahu li yaxfira lahum wala li yahdiyahum sabila may leen yàlla dafa wax ne gaa yi nga xam ne dañoo gëm ginnaaw gi ñu weddi ginnaaw gi ñu gëm ginnaaw gi ñu weddi may leen yéen su fekkee da ngeen a wax ne nit ki su gëmee su weddee dañ koy rey léegi gëm ak weddi ga topp ca aay ba lan la fay def may leen loolu amul benn delluwaay du ngeen ko fekk mukk ci alxuraan ndax may leen alxuraan dafa am benn mbir bu am solo bu mat a xam lépp loo xam ne liy dox diggante jaam bi ak borom bi la soo demee ci alxuraan doo fekk benn àtte bu ci yàlla jàngale li ngay dégg ñu naan la ci téere fiq yi ku toog ñetti fan julliwul dañ ko war a rey su maa su tuubul dañ koy rey doo ko fekk ci alxuraan maanaam kon li lim liñ ma wax ne su ma julliwul su ma ñetti fan dee may rey loolu amul ci alxuraan. loolu wérul saxul. neex gi ma neex nii man ma bàyyi lislaam kenn waruma rey. déedéet loolu sa digganteeg sa borom la. d' accord nekkul sa digganteeg nit ñi. d' accord dégg naa loolu ah ci alxuraan amul fenn fu yàlla waxee ne topp leen yonent bi. ankay. ok mais da koy wax maanaam maanaam xam nga baatu baatu atiyon Mhm. li maanaam li muy firi. moom dañ koy wax di wax ne atihullah wa atihur rasul. ma leen yàlla day wax atihullah wa atihur rasul. Mhm. mais ma leen su ko waxee. day wax ne fa in tawallaytum fa innama ala rasulina al balaagul mubin maa ngi leen baatu attihusa li muy to li muy firi mooy déggal maanaam comme li jox obéissez su dee ci tubaab déggal leen yàlla déggal ndaw li mu wax ne su ñu wanee ginnaaw nag nañu xam ne ñun kat suñu ndaw dara waru ko lu dul jottali bu leer te rasuul xam nga yonent bi ci misaal rasuul li tax ñu di ko topp mooy risaala bi ko borom bi jox ndax looloo ko tax doon rasuul même soo demee ci alquran li may wax lépp nit ñi mën nañ ko vérifier na nit dem suuratu nax li suura 16 aaya 35 suñ demee ci mujjug aaya ba ab laaj la fa yàlla def ne fa hal ala rusuli illa al balaagul mubiin ndax ndaw yi dafa am lu leen war lu dul jottali bu leer yonent bi la ko waroon mooy jottali te yonent boobu nekkatu fi te lañ ko joxoon moom mu ngi fi kon léegi ci misaal yow Cheikh Ahmed suñuy waxtaan ak ñii déglu maanaam su fekkoon ne damaa ñëw indil la benn wax ne la yonent bi moo ko waxoon maa ngi la ah yonent bi day yàlla ab téere la ko joxoon kon lépp lu ñu wax ne moo ko wax suñ demee ci téere ba war nañ faa fekk fa ko ko yàlla wax loowee uh-huh. maa ngi la léegi nañ dem ci téere ba xooli ko nga ne ma déedéet buñ fa dem loolu diw moo ko wéral may la waaw diw moom fekkeewul yonent bi te yonent bi ab téere lañ ko joxoon ci la daan sukkandiku di wax ci la daan sukkandiku di jëf kon léegi nañu dem ci téere bañ ko joxoon xool ndax loolu nga wax lu wér la ak lu wérul su wéree suñ demee ci téere ba dañ koo fekk suñ koo fekkul xam ne wérul loolu leer na comme weddi nga sunna bii ni <laughs> non maanaam sunnaay ahlu sunna wal jamaa mais sunnatallah li yàlla di wax ci alxuraan loolu. gëm waaw moom lay wax euh, maanaam ahlu sunna ahlu sunna wal jamaa ak siye yeeg ñëpp nga weddi te nga am ci droit nag ma nangul la ko. waaw mais kon ko def ak korite. non non. yow doo nga ko teg. non parce que dafa amul preuve xam nga lu yàlla jàngalewul loolu nekkul lu nit war a def jullit bi waru ko def. xam nga damay damay wax benn affaire nga loo xam ne xëy na ñu bari li may wax day day bees ci ñoom quoi mais ku dem ci euh, chaîne suñ chaîne yi euh, neex Nihma TV yooyu yëpp am na ay vidéo depuis ay deux mille dix neuf deux mille dix huit affaire yooyu ku ci dem di ko gis xam nga damay wax ne maanaam yonent bi mu fi bàyyi ko bi mu amee ay buur ginnaaw bi ci dynastie dañoo nekkoon ci logique toppandoo judéo chrétien yi mooy li ñuy wax chrétiens yeeg juif yi fi mu toll nii bëri na looy gis nit ñi gëm ko jàppee ko diine ci loolu la juddoo ndax ñoom ñoo ko créé maanaam ñan ñoo créé loolu. loolu ci jamonoy buur yi ñenn ñi ci jamonoy waa ma jamonoy waa banu umayya mooy ñu ñuy wax les Omeyyades. su ma la déggee yonentu musta julli korite tabaski Ababacar Ousmane Omar ñu ñu ko def. parce que yàlla digalu loolu yàlla diglewu ko. ok maanaam ñi saxaaba yi. wax ne lu bari lu bari ci jamonoy waa. banu umayya bal ma ma préciser laaj bi rek. maanaam mhm. su ma la déggee yàlla diglewul korite ni tabaski ci alquran. waaye yonantu sallallahu alayhi wa sallam musta julli korite ni tabaski. Omar Ousmane kenn mosu ko cee def ci ñoom. non non non waxuma ñooñu. xam nga yàlla yonent bi la yónni. Uh-huh. man su wax yonent bi laa mën a wax. waaw ndax moom yàlla moo ko yónni ba pare musal ko ci nit ñi ba pare la ko waroon def na ko ba mu mat. ba yàlla wax ne al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu aleykum ni'mati wa raditu lakumul a diina moom yonent boobu moom li ma leer wóor ma mooy lépp loo xam ne borom bi diglewu ko mosu koo def maanaam kon su ma la déggee mhm. yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi yàlla yónni ci musta julli korite nii tabaski may ma foofu Euh, yéen ñi nga xam ne yéen ak may seetaan maa ngi leen di fàttali parce que suma mbokk yi ñi nekk fii ci États-Unis Amérique am problème mu papier asile ak lu mel noonu dama leen di jox benn numéro waa legal chaperon leen ngeen woo leen su ngeen leen woowee dinañ leen dimbale ci seen këy euh, numéro Amérique rek la pour ñu nekk biir Amérique rek la muy 301 814. 36 99 mun naa ko wax ci english 301 814 3699 bu ngeen wootee dinañ leen jàppalante ngeen ba ngeen am këy euh, Cheikh Mbacke mhm. maa ngi lay gërëm ci ñëw bi fii di rafetlu sa xam-xam dafa am ginnaaw bi mbotonto loolu leer na nañ mhm. dama la bëgg a laaj mhm. yow ni ngay jullee nan la nan ngay jullee yow ak ñaata rakk ngay julli ak yan waxtu ngay julli parce que fu mu nekk damaa réer comme yow ñun sunna bii ñu ne weddi nga ko ba mu set léegi yow nan ngay jullee dinga nga nodd di nga wala doo nodd wax ma yow nan ngay jullee ak ñaata rakk ngay jullee s'il te plaît <laughs> xam nga nodd moom non yii sax euh, maanaam def naa ci ay vidéo depuis deux mille dix huit nodd moom mooy woote julli xam nga ma olof yi sax firiwuñ baat bi yàlla sooxee ne wa ida naadaytum ila solaati eh, ñoom dañuy ñëw rek na baatu nodd baatu baat bi li muy firi mooy joor li olof di wax joor comme yow saalum saalum nga di nga xam loolu te loolu yëpp alquran aussi moo koy leeral soo demee ci suratu yàlla bi muy wax yonent bi na ko inna alladina yunaaduunaka min waraa il xujuraati nga xam ne gaa yi nga xam ne dañuy joor yonent bi ci ginnaaw néeg yi nga xam ne baat la boo xam ne alquran ci boppam moo koy firi ama may wax ne alquran yàlla benn yoon la ci saxal ci nit koo xam ne bëgg na cee yeewu mi settantal yoon woowu nag nit ki su ci jaaree dina gisal boppam ne alxuraan mooy firi boppam mooy dictionnaire boppam mooy leeral boppam maanaam nodd moom mooy woote julli comme ñëw leen julli lool rek loolu loolu la ñuy wax nodd ñoom ndax ñoom comme par exemple soo demee comme nii gars yi di noddee ci jàkk yi ñu bari soo leen laajee dañuy foog ne benn benn façon boobu moo am te nodd am na ay façon su fekkee ne ñoom gëstu nañ yow nan ngay noddee non man nodduma ñun woote julli rek la ñuy def nan ngeen di wootee julli ñëw leen julli amul leneen <laughs> ma jox la exemple xaa ma wax la yow xam nga nodd gi lan mooy cosaanam wallaay xaw ma ko soo demee ci téere yi dañu lay wax ne yonent bi bi mu fi nekkee bi yàlla di jàngale ci li ñuy wax euh, maam woote julli ñu ne nit ñi dañ doon joxe seen xalaat ñii naan teeñoo def li nga xam ne moom la juif di def mooy béjjën yooyu nga xam ne ca lañuy ëf ñii di wax ne tee ñoo roy lu mel ni catholique yi di def loolu ñuy wax cloche nee na kenn ku ci ne di joxe xalaatam ñu ne am koo xam ne moom dafa tëdd nelaw gént ñu ne am koo xam ne moom dafa tëdd nelaw gént nodd gii nga xam ne moom la nit ñi di def nee nañ ñoom ci lañ commencé di ko def may leen lu jiitu ñu koy gént lan lañ doon def ak ndax diine ji yonent bi da sukkandiku ci loo xam ne nit keneen moo ko gént indil ko ko ñu koy boole ci diine ndax maa leen su ngeen demee ci alxuraan loolu ngeen di wax ci gént googu alxuraan da koo dàq num ko dàqee mooy yonent bi dafa am lu ko yàlla toppaloo soo demee ci suuratu anaam mi suurat 6 ay yàlla moo wax yonent bi na ko ittabi maa uxiya ilayka min rabbika la ilaha illa huwa wa arid anil mushrikin toppal li ñu wax yu mu jëm ci yow jóge ci sa borom amul benn yàlla amul benn yàlla budul moom te mu ne ko dummóoyul bokkaalekat yi yonent bi amul lenn lu mu doon topp ci diine loo xam ne dañ naan diwa ko indi wala diwa ko gént wala nàngam déedéet yonent bi lépp lu mu doon wax lu ko yàlla wax yu la doon lépp lu mu doon jëf ci diine lu ko yàlla wax yu lay doon nekkul leneen